waaw jërëjëf maa ngi tudd El Hadj Falilou Ndiaye di adjoint maire encore yor comme chargé communication bu mairie bu Touba. waaw li nga ko déggee rek noonu la euh, kenn ku ne am na euh, jëye waaye jëye ji ñu ngi sant yàlla jël yonent bi sant julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant sëñ Touba sant Cheikh Modou waaye li am mooy euh, ni moroon a mën a garaawe yàlla def na garaawe wuñu ci dañu jàpp ne. Euh, li fi lakkit du amul solo ndax ñàkkam solo gi mooy fekk na lépp ñu def ko ci ay ay ay ay machine ba machine yëpp vraiment lépp lu ci mën a doon lu ne am nañu ko archive waaw li ci tamit mooy lu toll ne soixante dix mille soixante treize mille reis su lu toll ne ñett trente wala nangam lakkee loolu sant yàlla la ci lakk gi niñ ko gisee ngeen moo di euh, euh, boo duggee ci bureau ba wala nga dugg salle archive bi mu amee nga xam ne loolu jëye la joo xam ne nii jógewut ci nit jógewut ci courant ndax courant bi mi ngi tàkk amul benn problème ah ndax ah, encore porte yi foo ci mën a jaar muy fenêtre yi muy yëpp tuute lépp fermé woon eh, kon nag li ñu mën a jàpp ca mag ñi daan ko wax dañuy jàpp ne daal unku mën na koo def ndax it mag ñi nee nañ unku bu mat dana def loolu ci tàngaay bu métti bii loolu yaakaar nañu ñun loolu lañ jàpp ne moom ndax buñ duggee ci biir salle archive Eh, tracé bi mu def laal fii laal fee laal fee loolu dafa mel ni luy dox moo ko def kon nag loolu lañ ci mën a jàppee waaye fenêtre yeeg buntu yeeg lépp a fermé woon li ngeen gis mu jot toj ci fenêtre bi sax sapeur yi bi ñëwee amuñu fuñ jaar ñoom ñoo toj loolu pour man fee sànni falaamu ndox kii ndox pour ndox mi mën a fay affaire bi waaye sant yàlla rek. fekk na lépp itam fogar woon nañ ko euh, ci ndimbalul ministre de la collectivité locale ba nga xam ne li waroon a dugg ci machine yëpp archivé woon nañ ko ba noppi. kon muy mel ni ñi nga xamante ni ñoom lañ dajal sànq ci buntu bi ñu ne dañ fi ñëwoon ngir jël si seen i kayit tey liggéeyuñ ndax dafa am lakk goo xam ni moo fi am mën nga leen a rassuré li nga xamante ni moom mooy seen i kayit def nañ ko ci euh, machine. waaw am na ci ñoo xam ne sax euh, mën nañu bañ a bokk ci loolu ndax li ma la wax li lakk bëriwut. ci it loolu la waaye li am solo it li tax ñu ne liggéey liggéeyuñ waxuñu liggéeyuñ dafa am lu mel noonu boo amee journaliste yi di ñëw nit ñi di ñëw eh, am na ci ñoo xam ñi ngi liggéey ñi ngi ci seen i bureau parce que vraiment ñi war a liggéey ñëpp ñi ngi ci seen i bureau di liggéey eh, am na ci ñoo xam ne itam biñ ñëwee constat bi nga xam ne gendarmerie ñëwoon na ak police eh, ak sapeur yi nekk ci diggante boobu Euh, profité euh, ñibbi nañ ñu delluwaat seen i kër waaye ñi nga xam ne ñu ngi liggéey itam ñi nga xam ne ñu ngi ci seen i bureau di liggéey ku ci ñëw itam ñu jël sa kayit xool ko boo ci nekkul itam jox la rendez-vous ba ëllëg. kon daal mën nañoo jàpp ni liggéey bi dina dooraat balaa yàgg. liggéey bi euh, taxawut sax bay dooraat ndax ñii ñaa ngi liggéey fii may waxee yow maa ngi nii yaa ngi ma fekk bureau sëñ Mara Mbacke di officier d'état civil di signé maa ngi nii léegi ak serre bi ma yoroon moom moo ko signé kon léegi loolu la lay wane na ñëpp a ngi liggéey kenn arrêté wut ñii nga xam ne rek jot nañoo toog Euh, coste bi fi sapeur yi nekkee coow léegi yooyu ñu xool ni defe ne duñ liggéey ñu dem ñibbi quelques agents loolu rek moo war a waaye ñeneen ñëpp ñu ngi seen i bureau arrêté liggéey moom arrêté wut benn yoon. heure bi nag exactement xaw ma ko parce que falaam bi rek la ñu gis moom mu génn ñu xam ko boo ci ci suba gi la loolee wan ne eh, li ko lakk kiiwut ndax bu noonu loo xam ne nii te guddi la ko def wala dara mara day taali kon dañu fekk archive yëpp jeex képp ko benn parti la beneen parti ne fee beneen parti ne fee nga xam ne da gis ne da xool ne lii moom luy daw la. waaw mooy li ma leen ko waxee nag mag ñi nga xam ne xam nañ yàgg nañoo xam mën nañoo xam ne lii bu ñëwoon fekk buntu tàjjeeku wala buntu ubbeeku wala dara mën nga ne sax li ci nit ñi xalaat wala waaye loolu lépp amu ci dañu jàpp ne daal euh, euh, mbiru yàlla la. unk bu mag mën na koo def parce que yàgg na koo def ci li nit ñi wax waaye waaye nag gisuñ fa lenn loo xam ne ni lu garaaw la